moo war a nekk le pôle culturel du Sénégal en matière de culture urbaine parce que tey jii li ma à chaque fois mënoo nettali sa gént nettali sa gént xool aar dafa yaatu culture dafa yaatu waaye ñun dañoo am sunu domaine bu nu sunu borom na ko mooy les cultures urbaines donc ci biir culture urbaine yooyu man sama di am nañ lu ci gën a important mooy am nañ ndaw am nañ ndaw yi am nañ énergie bi am nañ envie bi parce que tey jii président tey ñoo nekk ñun ma ci toog moo nekk baax rek moom ñoo bokk fédération gis nga woon benn grand wala bu ñu mag bu ñu naan nii nga war a def te dama bëgg ragal ah. su ñu génnee ba bu a fas fekk ma sant yàlla ñu ànd lool jël suñu nekk jaay bële bële nga ko jëm su ñu defee liggéey foofu monté festival premier festival activité urbaine man man ak samay gars ñoo peinture bi parce que grand bi ak taw ñoo peinture bi nii yenn baax na seen bi après ñu yëgaat ko saa yi borom séeréer bu mel nii ci Mbaye borom séeréer bu mel ñoo ko def bëri na suñu département ñoo xam ne tey jëriñ nañ ay organisation yoo xam ne tey jii ñoo ngat culture Sénégal te on a jamais eu l'opportunité vraiment de servir suñu département boobu te am na département boo xam ne potentiel bu am amaa na ñun rek ñoo ko gisul ak yeneen gërëm man je me dis que initiative bi. quand Emma et Lamine Sy ma leen di remercier ñoo ñoo ma woo ne ma ko bëgg a faire ça li ma ko waxee dama ne leen jaay ko nañ ci man fekkee naa fi au moins quatre ou cinq associations que ñu mën a yoo xam ne jëmee ko tey pour dagal laaj bi mais à chaque fois da doon échoué mën na leen léegi on ne peut pas répéter les mêmes erreurs ba pare di xaar résultat bi vraiment donc nañu créer un noyau dur même des trois quatre personnes yu réfléchir si defar les pas ba nga xam ne tey bés bu ñuy woo artiste yi parce que dañ koy wax artiste bu ndaw artiste bu mag te ñun ñëpp ay responsable ñëpp ay kilifa donc baa àggee koo doomu aadama foog la liggéey suñu comprendre kii moom suñu paree ci étape boobu nga def na symposium symposium mooy yéen yéen ñoo nekkoon suñu patron ñu doon def séminaire donc bi ñu liggéey ba pare liggéey bi donc ñu def leen benn part dañ koy teg après ñu càmbaral ku ci nekk indi sa ku ci nekk indi say idée lu ci neexul nit mu ne man lii neexul ma ci su ma sañoon mais par rapport ak nihilisme quoi am na nihilisme mooy dindi dara kaloo def dara mais lii su ma sañoon ñu defee ko nii ba pare tamit xam nga ñu si bëri suñu xamante ne ñenn ñi si ay kanam mais amaana peut être ñu minante ci niveau compétence te T2H dafa soxla xaarante daa soxla xel dafa soxla doole donc tey jii ñu fi nekk ñëpp tey li may wax sànq. position bi bu mu jaaxal rek moo tax ñëwee man ma ne xaaral ma toog suñu kii parce que dañuy dañ embryon lañ yor kii man jamono euh, déréglage considéré bi moom dafa fekk embryon léegi nag maanaam lii war a ko ma faw nag ñëpp ci di seen xam ba pare ku ci am compétence jàpp ne mën nga jàpp ci benn pegg bi ko ba mu dëgër ba liggéey dina jaar yoon jéem bi amul maanaam li ñu waroon wax si kaw ci émission bi rek teguñu ko pour xaaj ak teg parce que ku ci nekk si biir am na sa structure tey jii soo xool année yi mujj yaakaar naa ñu jàng ay fonds et des émissions en dehors de ça curiosité avec donc à travers nos structures mën nañu leen comprendre comprendre donc mais lii en fait tey ça va au-delà de nos égos suñuy gré-gré mais ça va au-delà de suñuy artistes artistes yi parce que li may wax foofu sa bopp bi la Paul Boucher di Sadio c'est un acteur culturel de la République c'est-à-dire. am na nu ñuy defee synergie maanaam des événements yoo xam ne day indi au Sénégal parce que am nañ possibilité am def am def am def ak département bi ñu mën nañ def ay festival yoo xam ne da ngay am date commune bi pare def am benn date benn commune pare am benn date benn commune am euh, une école de formation parce que pour man li gën a important ci mission de war a àndee suñuy ndaw en 2012 ma jógee woon bi j'avais la possibilité ku si nekk si ñun ñu bokkoon woon bi dañ amoon possibilité wu postuler pour benn projet ñun ñëpp mën a mën a koy raar mën a ah def nga festival yi comme ñii ñu ma ñaari at bi nii ma logistique fay ma xaalis ma rab encaissé mais période boobu dafa néewoon ay une des gi ci la bokkoon di pàccalam gi ci la bokkoon maanaam bi ñooñu génération boobu tey ñoo téye musique bu tëggee studio bu leen ci ñun de tous les différentes structures yi fi nekk nit ñooñu tey ñoo ko nekk di jariñ dëkk bi di jariñ ñeneen ñu nekkul ci dëkk bi tey jii un bassin bi nga xam ne ñu dee de Malika te bokkoon ci formation bi le dernier album de top donc foofu lañu war a nit bu man foofu lañu war a tey ñun héritage bi ñu war a bàyyi dëkk bi mooy bés bu ñu demee ñun ba pare ay jumbaay jumbaay yi wax ay jumbaay ay baaboo bu ñu demee dañuy bàyyi ñu mën a taxaw léegi dëgg am na ay bokk na ci dëkk yi am di yi gën a taxe Sénégal bokk na ci dëkk yi am festival bi gën a mag Sénégal bokk na ci dëkk yi di ëpp ay artistes yu fi exporté wu def ay festival bi nekk ci àdduna bi suñu defee loolu bu boobaa ñun suñu defee suñu naan dëkk yi mën a taxaw suñuy nopp pour man loolu moo ci ëpp solo donc comme Emma a déjà tout développé yaakaar naa nag euh, jot na léegi nag ñu ñu bàyyi kàddu bi. te tey jii ne tey jii man comment nii c'est fake nii nii yow ah nga nga xam ne lii mu ngi si yow yow lii nga mën sa mën fii la yow nga gis na ne li mu mën a kat mën-mënam dépassé na la yow wala mën-mënam tey jii buñ ko boosté wala ñu jàppale ko dina def foo xamante ne yow yàlla dogal na yow mënoo faa dem nga ne doo fa def yow imbécile. <laughs> am na ñu toog fii am na ñu toog fii ñoo xamante un millier fi ñu toll nii. parce que Seydina Mohamed ñoo waroon a diriger rap Galsen. man sama toogee di leen xool ni sama yaram sax day daw ay gars yoo xam te ne parce que Seydina Mohamed dañoo am talent. toog fii mais lan moo leen tere def dañuy ñàkk ne demal seen bopp ba si ba si lobby bi nekk si kanam bu ñu demee ñoom dañ leen di fere dugal seen i bool. kon li ñu gën kan la daa xarab fii. kan la bële de kan la daa xarab fii. dit du ñu gis kan la daa xarab fii. waaw nañ gëm suñu bopp quoi ñu bàyyi gànnaay seen man école bi boo ko demee demi-finale nii jour daal bu dëkk Bargny man maa leen jëndi ba mu bokk si te rappeur laa ni moom. est-ce que yaa ngi dégg bi ma sa àndee moom bañ dem ba demi-finale ma xam ne Fata bi day dóor kooku laa ne ma day def ay sponsor am di jënd ay affaire am final da ngay gagné après doo si am dara te fekk ne dafa benn si artiste da ngay jënd sa yére di sol da ngay paas di dem te loolu c'est la même chose ak Floro kooku laa ne ma la ñoom bu ñu la jëndee sax lobby ay agriculture yi man ñoom bu ko bëri la sax dégg sa waay parce que moom ay yi ñu njëkk nii comme dëkk yi rek pourquoi pas ñu lijjanti suñu xoolal ñu def lijjanti suñu response boobu maanaam dëgg ko ñoom suñu version ak boobu comme ni ko gars yi waxee man damay wax en tant que am am ci jaw waxuma ko en tant que membre quoi xam nga tënkee suñu yëf la dafa war a dem dafa war a def quoi xam nga man mais nag li ma emporté wu maa ngi ciy jégalu te yàlla xam na ne ki ma doon waxal xaw ma woon instant yi xaw naa sax fàtte kanam xam nga mais dama bëggoon rek affaire bi nekk ci réew mi bu nekk mu mu mu xam ne li ko fi tënk. gars yi bu mel waxal di rafet ko quoi pour pour buñ génnee gars yi ne non gars yi liñ defoon du dem affaire bi du demati wala yàlla xam na ne day dem. incha allah ma ngi mais sama gars yi vraiment tey moom j'avais promis à mon petit frère expression artistique et que incha allah vraiment ñu am na lu yëkkati ba en tout cas félicitations. ñoom duñ la jox loxo dañ lay seexlu wala dañ lay xeeb ci parce que dëkkuloo dëgg il faut ñu waxante dëgg te lii am ba am mu la am ñi ka bëgg seenu tam ngay am ak keneen ak keneen mais c'est pas le cas c'est parce que yow artiste bi la war a respecté moo leen jëkk a sous-estimé ndax lan c'est parce que tu n'es pas natif de Tëngéej pour lan non non non rien n'est plus fort que la passion d'une personne ñun ñëpp ñoo bëgg rab kenn mënul fexe ba ñi ma ko bëggee sa morom du ko bëggee noonu expérience boo fi nekk nga ëpp ak kii kii ëpp ak kee nga war a am modestie ak mbaax bu toll nii xamal ma tàllal jiw loxo buñ joxantee loxo dëggee day dépassé fii un exemple Papa Sow bi muy def concert boobu sorano mais man dama am lu ma naxari parce que man dama mën a sot damay digg ne Papa Sow warul wax Tëngéej daa warul wax sorano daa a def grand théâtre te man man sama gëm-gëm laa xam ne sama bëgg sama gëm-gëm li ma gëm mooy grand théâtre la waroon doon jom ñaaje buddeeku topp la sëñ yi buddeeku sëñ lu topp la mais loolu laa gëm te loolu ma war a am mais des fois du jaar fi mu war a jaar yooyu am daal je m'excuse des fois voilà war naa mën a daw sa baatu borom quoi bu fekkee dañ ko dañ ko tegee noonu rek yaakaar naa ne avancement day am quoi mais nit bu defee lu nice nangul ne dafa def lu nice bu defee tamit lu dul yoon quoi boo ko ci rufu parce que ñun ñëpp on est des frères quoi en dehors de hip hop ñun ñëpp on est des frères xam nga ay frères de même bu ñu doonul ay frères de sang tamit ay frères de son rek parce que ñoo bokk li ñuy liggéey tey benn aimant bu wootee même sax mu ngi mu ngi bindu si si si kii sax euh, affiche am sax man dama war a dem dooleel ko. comme li alaa wax kii bu génnee tamit benn album wala benn CD single ñun ñëpp war nañ ko mën a jënd quoi loolu laa amoon ci loo xam ne wax war naa ko wax te tamit di leen xamal ne nii lii dañ ko demee gëm-gëm parce que la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer aussitôt la passe vite fait et bien fait. kon affaire nekkul loolu gars yi kaay ñu booloo ñun amuñu centre culturel amuñu dara mais pourquoi pas mën ñu faj pour am ko mais wóolante mooy tax affaire bi dem est-ce que comprendre nga bu nekkee dañoo ñëw nii. kii wóoruma ko wala kii wóoruma ko du dem ku nekk mën na apporter dara benn boy bu gën a ndaw tey mën na ñëw ne lii bu gis naa ne bu ma ko si defoon dina mën a avancer ñu jël ko affaire yi yokku n'est-ce pas mais kon dañu ànd booloo nekk benn yëkkati affaire bi mu dem fu mu war a dem parce que ay matador ay junni junni matador ñoo fi nekk ay Amadou Fall Ba ay junni junni Amadou Fall Ba ñoo fi nekk tey Amadou Fall Ba yéen ñaar da ngeen daan def ay concours tay tey boo bëggee dem Allemagne wala France moom moo lay si jël pour nga dem est-ce que comprendre nga. te yow tëjee nga gars yi reconnaître na nangul nañ la Amadou Fall ba wokkaam da daan jógee di ñëw cuumbaay bi du ma bàyyi ba fen moom moo ko daan def pax nga ñibbi chaque jour da nga loolu dëkk léegi loolu yëpp nekkee ñun am nañ ko ñàkk ñu dara kii am na xam-xam kii am na xam-xam keneen ku indi xam-xam xeex bi foofu la ñu teg xam-xamam fii est-ce que comprendre nga tëjee jëm boo dee mais baax ay classe te ay dégg nga dañ seen tay yi tëjee su la ko saa quoi. merci beaucoup. tey affaire bi. 30 artistes yàlla xam na ne amul kenn ku fifteen fukki dërëm bi gën a tuuti def ko si site bi quoi wallaahi lazim gars yi jour boobu avant ay bës gars yi invité naa leen Coly Blaise kenn génnewul dërëm dërëm dërëm te fréquence plus de deux cent cinquante mille man maa génne sama xaalis extraction yu lumière ma yéree tout amul kenn ku ma jàppale fifteen wallaahi lazim uniquement pour la pour culture xam nga pour culture yu benn bi quoi culture tënkee bi quoi tey tënkee gis nga solidarité bi ñuy wax suñu la war a déggee quoi. Flash tey mu amul benn sens man yàlla dafa def amul benn franc bi la benn affaire suuf parce que damay taxaw ne artiste bu ñu taxaw maa ko taxaw ak taxaw. jàppale man loolu laa wax surtout gëm sama bopp dañ koy def parce que mindset boobu man laa yor rek xaaruma par exemple euh, dem ci négocier wala soo nekk nag dama koy soxla parce que moom moo ko expérience muy moom muy ñeneen grand yi ne si si saa mais je me dis que ñun. je me considère ba léegi ci nouvelle génération bi ñun ñoo war a def le liggéey kii le travail qu'il yéen man euh, sama sama conseil rek laa wax en dee dama tënk nag nit kese la je suis pas parfait nii ci yéen soxla nañ leen mooy ci ci seen xam-xam mais yéen soxla ngeen ci lan doole parce que tey nii yéen ñii ñëpp mën naa ne ñenn ñi ay borom kër lañ donc am na ñenn yoo xam ne soxlaatuñ ko mais. ñu ne dañ leen mën a jàppale mooy suñu doole ak suñu xam-xam parce que comme y a des gens qualifiés yoo xamante ni tey jii nii ay de naa ne ko defee dañ koy def parce que man dama pas personnellement di ci mais ci lii la jëm donc dañ leen ciy rejoindre di ci yéen ñi nga xamante ni ñëw ci yéen mais au contraire yéen ngeen ñëw si yaakaar naa ñun ñoo ko waroon def parce que ñun ñoo am carrière bu ñu déroulé ci kanam donc di leen jaajëfal. jamono bi fu bureau ba ngeen baal ma rek pour ñu continuer bureau bi bi mu fay am xam-xam amu fa woon alal amu fa woon dara amu fa woon dara amu fa woon boobu mais bis moo fi nekkoon ak MSN gars yi xamuñu sax lu ordinateur man maa ko wax c'est bien li taxoon loolu am tey dem ba toll fii xam nga lan moo ko waral parce que gëm-gëm kese moo fi nekk gëm-gëm boobu laa bëgg indi ci suuf bi mooy ñu gëm na ñi am xam-xam ak ñi amul xam am doole ak ñi amul doole ñun ñëpp nañu bokk ne tàkk ñu nekk benn te bu fekkente ni jàpp ngeen ni lii ngeen di def yéen dañu cuurbaay moo ko war a xajamal dama leen koy ñaan di jëm yàlla ak yéen mooy ngeen seet ma teg ma dal da ngeen ko continuer parce que ànd rek laa gis ne moom mooy doxal yoo xamante ne bi jaarul rek ku parce que samay que ñun ñuy doomu dëggee jéeg wala tey foo dëggee ñu gis ni leen show lawbee kon ñun xam nga li ñuy jaar kon nañ gën a góorgóorlu mobiliser wu jàpp xool benn bëgg boo xam ne moo ñu jëmalee kanam guddi gi aw ma nekk question bi posé merci Mouhamadou Diagne soo ko doon boo ci toog damay am na fu may dugg ak ñoom da ngay xam ne ñii dañuy teg tàmbaloo bi technique rek après ñoom pour moom foofu la quoi par ça en face de milieu de presse que di fa nekk bëri na il faut que am na loolu sax te yaa koy wax background bi knowledge bi il faut ñu jàngi gëstu xam-xam moo la mën a yóbbu et je pense que loolu du ko amee euh, euh, à travers des workshops ay ateliers yoo xamante ne parce que business non il faut ñu gis suñu bopp et je pense que plateforme bi ñu ne euh, foofu la ñu bëgg yóbbu pour le développer musique de Rufisque en plus gars yi quand on parle de Rufisque des fois dañuy frustration moi je fait partie euh, du département de Rufisque mais j'habite à Sangalkam am na ñu jógee Paris am na ñu jógee feneen ak feneen surtout euh, ngeen yor projet bi initié ko il faut que euh, ngeen def de telle sorte que ñeneen parce que man garaawul na wala boobu wala keneen ku nekk parce que moom kenn dañ ko bàyyi man ça va li may def koy def pour les générations futures bi may am wala bëgg am ko wala keneen am nañ ko kenn nañ ko ah, y'a pas photo donc du coup il faut que euh, ñu impliquer davantage les ñi nga xamante ne dañ leen woowee waa ñaari ak bureau bi ñu ne foofu ah waaw waaw ci lañ bokk <laughs> euh, da ci am solo euh, loolu ñu def de telle sorte que. leader yi activiste ñëpp xam ne donc ñun les jeunes ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk. ñoo leen di appuyer ba def projet pour ñoom ñu mën a dem parce que ñun ñoom suñu tegee seen projet te bi lépp te ñu leen appuyer wuñ si ànd doog benn yaakaar naa ne dara dara dara du dem donc dañuy gëm suñu bopp te tuuti complexe bi nekk si ñun xam ne ñun lépp mën nañ ko defal suñu bopp te mën nañ ko defal suñu bopp quoi donc ñu jéem a concentré ñun ñëpp ànd si projet bi te dem si boobu jeex jusqu'à la fin def li ñu war a def góorgóorlu bi après lépp mën na sotti quoi te gëm naa ne lii bu ñu si taxawee bu baax a baax. nga gën a gis ma am faral koo def nga am quoi loolu am moo ma si wax benn doon si ñëpp jaajëf. man mi jot yomb quoi mais tey jii nii nii nii dal sama xel tam nag su ma demee sama xel sama tëddee sama xel la damay nelaw ak yeneen booy yu jël dara yu nekk yoo xamante ne tey am nañ potentiel mais xamuñu ban yoon la ñuy jaar pour mën a nekk exposé seen produit donc tey jii man dama dégg si adresse bi fii la dem structure bi boobu pour mu mën a jàppale taxawul sama projet ñaari question yi laa amoon merci beaucoup sama gars. am na ñu ngi ñëw parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw génération buy wut la te euh, hip hop bi nekk na loo xam ne fi ñu toll wax fa dëgg nekk yàlla département bi gisu ci bopp peut être am na actes yoo xam ne ñu ngi ci gis seen bopp donc à travers initiative dama koy rafetlu bu baax a baax a baax des systèmes comme Jola qui représente dignement le département comme koy ci ñeneen ak ñeneen. man je me dis li may suggéré ñi nga xam ne ñoo initié mooy ne gën a décentraliser parce que lii dafa am solo di ko yóbbu baax di ko yóbbu mel ni Diamniadio Sangalkam feneen ak feneen mën a gën a communiquer ak ñi nga xam ne vraiment euh, ñu ngi ci biir milieu bi ak ñu ngi ci mouvement hip hop parce que ñu mel ni ñoom bés ñu ngi ñu ngi def seen liggéey ku nekk yaa ngi def seen liggéey personnellement ku nekk seen liggéey mën na dox ñu mën a suuxali donc culturellement dafa dee donc lenn rek moo ko mën a sauvé mooy tey lu mel nii moo tax bi ma gisee jotaay bi man sama xol dafa seet dama kontaan et aussi kenn bañ a xaar dara nag ci euh, initiative yu mel nii ku ci nekk da ngay fexe jël sa caabi nga tijji su fekkee des partenaires nga ñëw nga indi nga dimbali gars yi parce que affaire bi loolu wo waaye man mu ñëw indi apporte sa touche ñu def la pour département bi pour les générations ñun bu ñu ñëwee mën ci gis seen bopp. ñu ñëwee mën ci mën ci jariñoo ndax ñi fi nekk nii tey ñëpp ay modèle lañu média yaa ngi taxaw nit ñaa ngi leen di suivre ñu ngi leen di déglu am na génération ya xam ne yéen a éveillé ci ñoom li nga xam ne mooy euh, donc artistique bi yéen yéen a tax ñoom tey passionné yéen a tax ñu bëgg def musique à travers les médias les écrans tout ça donc man li ma xamoon pour wax rek na que nañ ko gën a yàlla man sama xol seet na kontaan naa ndax lii xaw ma na ban at la mu jotee waaye fi ma see am tamit baroo bu ma am ci ci département bi bari donc dama leen ci ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yàlla def lépp ngeen ci seen muy yiw ak barke département de ñun incha allah dinañ ci def à deux cent pour cent lépp lu ñu mën aussi dinañ ci def dañuy ànd incha allah merci. merci. man benn jour mos naa si waxtaan ak bés nee naa ko bés maa ngi jégalu boo yaay toog boo yore yàq rab surtout côté écriture. Sénégal mooy jël le meilleur litigiste au Sénégal booy dañu war a poñe mën nañu jàngal ñu ñuy bindee booy dañu war a poñe professeur mu ñu jàngal booy ñu ñuy bindee parce que da ngay dem conseil ci seen conseil booy taxaw di rab di la saag te ñun ay jamono ñun suñu ay jamono bu ñuy rab jamono màggatul naa yee tool xam nga lu mooy jamono màggatul naa yee da ngay taxaw di rab soo waxee lu jaatu public bi ñoo lay xëccal doon na ba ngay bëgg a dee mais léegi booy ñooy saaga gaay c'est paradoxal c'est paradoxal quoi léegi ñu koy daal di mooy ñun il faut qu'on ait aussi benn politique parce que mënoo fi teg dara lu ñu am am xam-xam lu ñu booloo booloo ba mu dëgër mais suñu toogee di di métti métti di dëgër dëgër loolu si ñu demul benn politique on va rien réussir dans cette mission bu nekk nii vraiment xam nga su ma yor kóol ak lu ma yor moo tax man maa ngi ko jëlaat bi mu nekkee bi mu jaaree. bi mu jàppee fii mel bi man loolu dama dama kontaan sama xol na si seen parce que dama ne fête de la musique bu gëj a am liggéey dina am ren maa ngi woon tel que je le connais fête de la musique bi gars yi doon jooyee at at ren incha allah dina am xam naa dina ko fëgg si taamu bi gars yi dinañ ko def maa ngi gën a ñëw di sant ñëw maa ngi ñëw di suñu bopp sa bi. mais daje bi man dama sa dama sant bi mu dafa tey représenté musique parce que dañuy man compositeur ay album dama koy dama koy fu mu mën di am dama koy ut wala ma jënd mais da ngay déglu premier track ba dernier track doo si gis benn sang boo xam ne si sax benn futur ak benn boy underground mais ay aada garabaat dañ koy def dañuy def benn projet def auto track bu leen seen booy koy def ay booy xam ne su leen xam fenn ay booy mu mais yaa bu leen bàyyi leen teg bi ngeen bëgg a affiché rap yo rap rap yo y a des jeunes talent bi fi nekk am talent mun li ñuy def dañoo dañuy nii une fois dañuy nii compositeur defoon benn projet boole si benn boy album bu Boucher c'est international ñu koy dégg. parce que maa ngi ci loolu. muy keneen ak keneen ak keneen ak keneen ay nit ñu nit lu leen leen ay nit lu leen leen mais quand il est temps quand le moment il faut pour ñu liggéey fekk dañoo war a liggéey parce que problème bi moo ëpp suñuy problème personnel parce que lu fi souffre de tout lu fi souffre d'infrastructure lu fi souffre d'artiste lu fi souffre Rufisque dëkk Rufisque mu ngi souffrir ci lépp formation information dara amul Rufisque donc tey je pense que il est temps ñu jël lépp ñu teg ko de côté ñu fàtte lépp ñu liggéey parce que tey ku si nekk comme je l'ai dit au début am nga sa structure boobu tey même ñi fi toog public bi ku si nekk tey yaa ngi dundal sa bopp kenn dundalul kenn fi am kenn dundalul fi mais l'union fait la force ñeneen dëkk yi bi ñuy doon unir pour teg seen structure du parce que dañoo bëggante woon ou bien parce qu'ils étaient les meilleurs amis du monde non y avait le besoin qui était là dañoo soxlante woon donc ñoom ñu taxaw ñu liggéey donc ñun garaawul suñu nekkee suñu suñu rombee bu ñu tuddante mais quand même suñu heure liggéey jotee pour ñëpp avancer ñu taxaw ñu liggéey pour ñëpp avancer loolu lañu soxla du ñàkk nag ay presse de ressentiment dina si am parce que ay nit ñëpp ay commettre erreur man mii sax bopp mën naa dem ba si biir commettre erreur mais c'est pas loolu moo mu am keneen ku taxaw corrigé wu balaa mu may weer ñu bàyyi weerante bi ñu bàyyi fàtte affaire de bi xaar nit def erreur pour ñu sanctionné ko moom c'est-à-dire que liggéey bi ñu ko parce que tey su euh, li yëpp weesoo après résultat yi di ñëw si ginnaaw je pense que moo gën a important tey beaucoup de gens se sont engagés pare nañ pour accompagner T2H Alvin demandé na sax ne carte membre je pense que Amine dina def communication boobu tu vois donc pare nañ pour liggéey te on est prêt ah ale bu fu mu yem neex léegi yéen bi pare ngeen pour loolu. jeex na. tey jii li ñu bëgg a def nii tey jii ma avec ma structure maa ngi am samay fonds maa ngi def samay événement maa ngi def samay production am naa studio Dakar am naa studio Dengay maanaam mën naa toog sama gàlle di liggéey demee liggéey di lekk sama xaalis ba dëgg yàlla su ñu waxee dëgg rek te yàlla tax waaye li ñuy sumb nii moo ñu mag moo ñu sut sababu dara damay toog sànq bi saa yoo ma ne ko li nga wax dëgg la man damay ruus depuis 15 ans su ñuy tudd dëgg benn année lay tudd man damay ruus boobu parce que xam naa potentiel bi suñu bi bi muy bi muy nekk bi muy bu mu nekkee flow Pikine dama dem support bi non bi bokkoon na ci laaj au niveau de Pikine damaa dem support ji jour bi ñoom Pispa demee final ñoom Pispa dem na deux fois xaw ma trois fois. maa jël kii man maa bokkoon ci ñu war a clôturer concert mais man damay wàcc parce que loolu fii bu la deret la sama rakk moo ne ci kaw seen bi amaana parfois ay artiste dëgg yoo xam ne du leen sax xam mais su ma bëggantee ñoom Dakar je me rappelle xaw ma dafa am show of the year dama ñëw fekk kuku taxaw gars yi régime bi ñu joué ma ne pour man léeg-léeg nga sori di dégg yenn wax yi wala yenn wax yi di influencer nit ñi mais ñu conseillé quoi xamante ne suñu biir te ñun amuñu lu gën a fort suñu dëkk bi dëgg dañ am tey jii man su may toog wax ba sax may dégg saa yi naan foog ñu foog ñuy mettre l'accent sur l'aspect départemental man sama doom man waa Dàngu la mais sama doom waa Kër Ndiaye loolu parce que laa dëkk samay doom foofu lañ juddoo est-ce que comprendre donc tey jii du mu dugg ci initiative boo xam ne du sóoraale ñooñu noonu. you know donc tey jii lii ñuy def nii waaye booy naa tardé gis naa la da ngaa tardé voilà donc premier pas bi ni ko Emma waxee sax mooy dañuy wut bërëb bërëb ne dinañ fa mën a tàggat li ñu maanaam dañ mën a déroulé suñu programme mën a tàggat suñuy ndaw foofu ñaareel bi mooy en dehors de li ñu def nii lii c'est seen début mais on veut vraiment aller à la rencontre des structures yi nekk si département bi ñoom seen i bërëb parce que tey jii mën nañ toog fi di wax mais ñun xamuñu réalité yi xew Bargny xamuñu réalité yi xew biir jam ñaajo xamuñu réalité yi xew euh, Bambilor Sangalkam ba Gorom 2 xamuñu li xew Séni donc bëgg nañ dem rencontrer gars te même au niveau de Rufisque même au niveau de Rufisque même certaines structures yi nga xam ne amaana peut-être dañoo jàpp ne xam am na ñoo xam ne pour ñoom suñu gisee proposé si biir danaa def proposé man ma ñëw léegi ñun dinañ dem si ñoom fekk Fane Ba xam daal tax tey démb dama koo baax démb dama ko ñaan su ñëw tey dama koy ñaan mais heureusement comme man de léegi bi fire flow bi xam naa ne ko yóbbul dina ay gars quoi donc on bëgg dañ bëgg que ñëpp def ko seen yëfu bopp parce que lii du yëfu bopp c'est du yëfu émat du yëfu la ISCO du yëfu kenn si ñoom mais maanaam bëgg nañ fii ak deux ans fii ak trois ans suñuy tudd hip hop Galsen Tëngéej la ñuy jëm a tudd star yi gën a mag Galsen Tëngéej la ñuy festival bi gën a mag ci bopp Galsen Tëngéej lay te mën na nekk parce que dem na ci yeneen dëkk ñun def ko foofu sax mooy suñu dëkk donc su demee ba tey jii ñun ñu war a mën a boor parce que tey jii lii gàddee mënul moom rek Emma mënu ko moom rek man mënu ko moom rek suñu régaloo dañ koy mën pour man loolu mooy le but de tout ça tey jii Emma à son studio a il a son de production man la yem ci ay at the chaque année ñuy frustré wu chaque année ñuy mer su Wally Seck ñëwee joué fii maire yi jox ko un million man su may joué duñ ma jox mille francs après ma ciy mer di frustré wu benn booy tamit war lekk événement du am lu mu ko financé mais faal <laughs> ba kañ quoi ba kañ man je me dis juste que li ñuy def nii mën na nekk un pont entre les artistes et les structures na nekk un pont entre les structures et l'administration parce que tey jii ñun. ak li ñuy def bokk na suñuy projet ñun ñafe ba am un fonds commun boo xam ne culture bi benn moom moom tey yi nga xam ne Malick su waree concert xam na ne balaa muy sax dem mu di sponsor xam na ne am na benn trois cent mille wala quatre cent mille bu koy xaar boo xam ne T2H moo ko lijjanti au niveau au niveau de la mairie wala te bi dafa may entreprise bi nekk en dehors de la société des fondations société bi nekk nii am na Eiffage am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc tey jii su ñu defee délégation ba def bloc ba am suñuy suñuy ndaw yi ñun gars yi mën a dem jàkkaarloo gars en dehors de ça y a énormément de fonds yoo xam ne actuellement mu ngi mu ngi jógee fu nekk ci àdduna bi tey jii pour man mën na ne li ñuy gis Guédiawaye mu gis Pikine di ko gis Dakar mën na ne maanaam du xam-xam bi ji moo ñu ko xañ du énergie bi moo ñu ko xañ léegi lan moo tax ñu war a gëm suñu loolu voilà donc loolu rek laa bëggoon clôturer di ziar ñëpp di ci leen gars yi di nuyuwaat ñu Aliou déjà wax bi bi di laay doon wax sans sans faire kii c'est-à-dire tout le temps moom discours boobu may galvaniser tout le temps c'est-à-dire moom toujours daf lay xamal ne tant que yaa ngi def yaa ngi lâché ci temps de di jël ay at dafa am lu bëri yoo xamante ne war a bokk ci tax dafa war a dépassé pour gën a accompagner man c'est d'arriver à se fédérer mooy li ñu doon wax sànq bu fédéré waat force fexe bu ñu liggéey bu fexe ba li nga xamante mooy suñu petit frère ba réew c'est-à-dire il arrive à être autonome xam nga ci seen ci seen laaj avoir une formation ak structure culturelle yi fi nekk c'est-à-dire créer ce pont là pont boobu moo mën a tax artiste su Bargny-Waar bi gis boppam biir ci tëggee ci artiste su Sédhiou bi gis boppam biir Bargny keneen ak keneen ainsi de suite c'est-à-dire barrière yooyu si on n'arrive pas à les franchir c'est-à-dire c'est l'histoire ak lii amoon rek mooy dara tey te comme mooy ko doon waxee rek déjà ñi constitué fii y a un Bargny-Waar y a un xam nga bu dëkk Kër Diallo et cetera et cetera ça montre la diversité bi nga ne actuellement moom lañ leen di produire maintenant nag li des ñu war ko réaliser day des ci l'application bi duñ koy changé nous on a un programme te te bëgg nañ ñëpp accompagner ci xam nga avancé loolu bu koy wax sax mettre nañu en place des stratégies c'est-à-dire de récupération dem ci saa yi def ay plaidoyer rien que pour impliquer tout le monde c'est-à-dire il faut aussi les gens comprennent mu ni T2H mënul tere kenn ku ci nekk nga yor sa association bu nekk soit banque yi regroupé ñi fa nekk ñëpp di doxal wala des associations perso wala ay entreprises personnelles lii c'est un truc boo xamante ne dafa bëgg a boole force vive yooyu yëpp pour essayer de créer une benn industrie affaire yi mën a fluide. d'abord ah c'est bon donc d'abord dañuy dañu leen di remercier ñu leen di remercier ñëpp gis nañ ñëpp seen teewaay jusque aussi comme ni ngeen ko waxee parce que gars yi def nañ demande leen question yu bari laajte nañ. laajte nañ affaire yu bari pour bëgg a xam côté ndax département bi la ndax ne par la T2H bëgg a yóbbu culture urbaine bi affaire yooyu léegi pour pour plus d' information vraiment eh war naa joxe numéro bi comme gars yi bu créé woon na WhatsApp boo xamante ne c' est pour T2H nga xamante ne ku bëgg information mën na ko dugg comme gars yi WhatsApp dañu gën a communiquer aussi on veut créer benn groupe boo xamante ne mais groupe bi c' est juste un groupe du doon groupe ouvert nga xamante ne que gars yi dañu mën a partager loolu mais euh, pour le moment dañ koy tëj pour des infos dañ ci comme on a des fiches de fiches de renseignement et tout nga xam ne après dañuy dugal numéro yi aussi ku si mën na bëgg jël numéro bi ko jëlaale ko c' est 70 77 774 10 70 774 10 70 et aussi les cartes de membres sont là dañ ko def pour exemple rek pour ñu mën ko wane. après dañ ko mën a envoyé carte membre bi ngi jar 2000 francs c'est quoi waaw pour ñu mën a ñëw ñu adhéré parce que man moom je vais pas être non du ma du ma dugal affaire bi mbiru mbiru ñëpp la mbiru ñëpp la kon ni ko gars yi defee yenn secteurs yi noonu la ñu ko bëgg a defee pour ñëpp ñëw bokk ànd képp koo xamante ne fii am nga compétence yu dara s'il vous plaît bu la koy ñaan comme suñu numéro bi ñuy joxe information bi nga jël ko nga wax nga ñëw dugg gars yi on que ñu ànd liggéey te aussi bëggoon naa joxe benn information si le président gars yi permettre ko dama bëgg remercier kenn ñu tudd Momo Momo Momo mën nga jóg s'il vous plaît gars yi dama leen jox exemple la exemple dama leen jox exemple dañ ko comme ni ñu envoyé ñëpp invitation yi moom doon lañ ko envoyé invitation yi def na stage ay agriculture affaire yu bari moom comme lii rek la bëggoon tey jii daf ñu promettre ne moom am na local local maanaam espace boo xam ne dafa bëgg mettre suñu disposition maanaam T2H lu bëgg a jox local tàccul leen ma ko waaye suñu am na koo xamante ne mën na bañ a am temps mën na bañ a il faut être membre mën na bañ a sax yor poste mais mën na liggéey loo xamante ne ki yor poste sax mën na ko bañ a liggéey gars yi loolu rek laay ñaan encore leen rappelé numéro bi c'est 70 ça s'affourra 77 774 10 70 léegi les autres di kii en plus le 26 le 26 dañuy def conférence de presse officielle pour suivre mbir mi le 26 avant loolu ñu ngi am information yi mais le 26 dañuy def conférence presse pour suivre mbir mi si dañuy créé waale page Facebook yi dinañ am yooyu bon monsieur le com communication boo waroon gérer waaw mais lieu bi même chose la gars yi yor ay jara aussi. ñu ngi leen di invité di leen def communiqué de presse di de presse le 26 incha allah le 26 matinal bi après le 26 guddi ñu dem Dakar support son excellence waaw Chula aussi am na événement le 20 fii gars yi au niveau de salle des fêtes événement bu solo la sur invitation bi mais yéen xam naa ne su ma la si am information comme ñu bëgg a jàllale comme ay événement après groupe bi dañu mën a permettre ñu mën la jàppale sponsorisé la sax incha allah boo ko di leen teel a mën leen gërëm ok ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier et je pense